sa prestige donc c'est le propos moi, les lay de yaa ngi doon approvisionnement en eau ak euh, wàllum euh, insalubrité parlant de l'UCG c'est comme si dañuy sentir de dépendance ci côté vous. alors en ce moment, à qui la faute aussi maintenant vous en tant que maire maintenant, c'est le projet en cours pour remédier la situation je vous remercie. merci ci recevoir là les étudiants thiessois de l'université Cheikh Anta Diop étudiants thiessois yi nekk université Bambey étudiants thiessois yi nekk Gaston Berger étudiants thiessois yi nekk Amadou Mahtar Mbow étudiants thiessois yi nekk université Sine Saloum ak yi nekk université Ziguinchor ci salle bi li ma leen waxoon ci biir néeg moom laay wax publiquement ñëpp di ma un double langage li ma leen public pub privé fii moom laay wax publiquement j'ai dit aux étudiants subvention bi may waaj pour jox leen mouvement nawetaan sax amuñu plus de 15 millions que je suis en train de mobiliser pour jox ko les étudiants am kenn structure pour ko am mais les journalistes yi ngeen xam fonds de dotation état bi joxé ko dañ fa am 103 millions subvention étudiant yi foofu laa ko logé mënu ma ko génne tant que xaalis boobu wàccul voilà le seul problème c'est le seul problème que j'ai parce que étudiant yi aussi duñ téye man mo wax leen dëgg jamono bu né parce que man deug rek moma ma couvert je n'ai plus qu'un seul engagement c'est envers la vie. Ben engagement rek la jël moy envers la vie, man suma démé demee ba de jël plus de 15 millions de subventions ni leen ñu les te am yéene yokk ko parce que dama far ak je suis un produit du mouvement LR. je suis un produit du mouvement étudiant je suis universitaire je suis membre du SAES SAES ba bari leen di yëkkati ay pancarte bobu étudiant la woon élève laa

jafe-jafe yi étudiants Thiessois yi am à Dakar dund ko parce que dama nekkoon président de la coordination des étudiants Thiessois à Dakar pendant deux ans deux mandats man du ma ko ñuy convaincre ci problème mu étudiant ak jafe étudiant dama ko xam wax naa leen nii leen ñoom étudiants yooyu dinañu jot seen subvention bu ñu yàlla defalee jàpp parce que dama doon sécuriser seen i subvention ñoom di sécuriser bourse yi ma bëgg a jox étudiants yi koy ko liggéey parce que amuñu ambition rek jox subvention union Thiès waaye Dakar seen suñu ambition mooy bu ñu la joxee seen subvention à côté joxe ay bourse pour ñu bëgg a jàng ci école privée dañ doon wut pour sécuriser xaalis boobu parce que nag fonds yooyu bu ñëwaat traditionnellement dans les mairies fan la daan dem fonctionnement cabinet maire xam ngeen ko ay gasoil ak carburant ak yooyu fa la daan dem xam ngeen ko yéen les journalistes pour la première fois ak Thiès ñu jël fonds yooyu jox ko mon culture bi jox ko étudiants yi jox ko jeunesse pour la première fois xaliss bob 103 millions yi dara dugg ci ci cabinet ay xaliss bob dañ ko daan duggal ay cabinet maire cabinet maire ay carburant ñu jël ko sécuriser ko pour les étudiants parce que étudiants yi su leen waxee war nañu maa mën a parce que j'ai pas de de langage du ma koy làqal parce que nag.

xaalisu état bi bu bu 103 millions yi génnee ñu ñu remboursé ku ñu mën a lebal 15 millions suuf nañu ko lebal. alors pour les équipes. donc Babis euh, mairie bi bu o xamante ne dëgg rek ngeen yaakaar ni que dafi nekk ay fonds caisse noire wala sama nu bu fi nekk boo xam ne maire daal daa yor benn koppar forum boo xamante ne bu xëyee ñu la soxna Mariama am wala Babacar am fii bari na dëkk bi problème yu fiy nekk wala nit ñi fi indi ordonnance suñu alal lañ ciy def suñu alal lañ ciy def moi la ville de Thiès ne ma donne même pas de carburant suñu carburant yi yëpp suñu oto suñu ñàkk lañ ciy def y a rien dans cette ville mais c'est un défi de reconstruire cette ville là fii dara yomb du alal bu fi nekk boo xamante ni benn kees la boo xam ne ngay xëy jibb ci ku la neex rek nga ne ko la non non c' est pas ça donc mais les étudiants xam nañ seen jafe-jafe fonds yooyu xam ngeen mais am na yenn mairie yi dem nañ ba mënatuñ fay salaire ndax xaalis boobu état moo ko téye Thiès ñun ak bu ñu foofu dañuy fay suñuy salaire mais am na ay mairie yu am problème mu fay salaire ndax état bi vidé ko xaalis boobu. xaalis boobu 103 millions lañ ci am ñun Thiès théoriquement état bi bind ni jot nañ ci mais ñëwagul xaalis boobu xaalis boobu bu ñu ko jotee dina ñu fay étudiants yi seen subvention 50 millions yi ñu ci war a jël pour les bourses pour étudiants yi ñu bëgg a jël ci privé bi jàng dinañ ci génne lañ ci war a génne pour culture ak sport dinañ ko génne ci xaalis boobu. amul dara lu ci dem ci poste de kër Babacar bi bi maire wala nangam ak problème bi ñu am ci étudiants yi mooy problème mu ligue bi aussi football moom laay wax mouvement nawetaan bi ñu ñëwee recevoir naa leen ma leen xam ngeen maire yi leen jox coupe du maire ñu budgétisé ko ci de dix millions xam nga loolu ça n'honore même pas la ville de Thiès mouvement nawetaan mu toll. ñu dem Thiès am ay club d'élite presque maire yi mënul def dara pour ñoom boo demee Pikine lañ ma wax le mouvement nawetaan reçoit plus de soixante millions. Thiès nous les sax accompagner mais nous on indi c'est la faiblesse des moyens c'est la faiblesse du budget Moi tax su ngeen déggee mairie di xeex ci patrimoine Thiès wala ñuy xeex ci leneen ngeen yaakaar ni affaire docteur Babacar Diop voilà wala Marème wala mairie da ngeen di nax seen parce que suñu a ay moyens on ne pourra pas rien vous donner xeex yi ñuy pour mobiliser les ressources xeex yi ñuy pour protéger le patrimoine de Thiès ñoom leen ngeen bokk ci loolu mooy tax budget bi dem 10 milliards ndax budget bi bis bu nekkee bi 10 milliards nag étudiants yi am nañu full ak fayda ba bu ñu ma laaj ay subventions 15 ak 20 millions bu boobaa ay centaine de millions lañ lay laaj. c' la même chose aussi pour les équipes de Thiès donc cette année-ci j'avais travaillé avec waa finance pour jox une subvention même si c'est symbolique même pas ma ko ah hein, piste boobu donc avec les équipes de Thiès mais. Nous avons dimbale fii euh, saison de projet la mobilisation de ressources naa ni équipe yi représenté ont gën mais qui seen mais si je vous promets ici pour que vous neex waa pas rek ci maire xaalis fi dara il nous faut des ressources Mais pour Thiès c'est la deuxième ville du pays qui est ku une fierté ah oui parce que nous sommes des gens fiers c'est ça on mobilise à peine un milliard de ressources alors que ville, il y a ne ay qui Rufisque a mobilisé plus de 5 milliards de budget 7 milliards Dakar on a plus de 60 000. un milliard de ressources sax pour ñu génn ay problème la et on dit que ci un milliard yooyu ak presque sept cent millions yi ay bor sept cent millions yi ay bor la ci la ñuy régler éclairage bi régler ci seenum njàng régler ci problème mu yoon bi régler ci problème culture bi régler ci problème sport bi ku leen ko wax waxul dëkk c'est pas possible c'est ça la vérité c'est ça la triste vérité si j'ai refusé d'acheter un véhicule c'est pas soxlawuma ko non parce que xaalis bi fi il faut une stratégie de mobilisation des ressources les projets que la ville va porter xeex yi ville protéger le patrimoine de la ville yokk le budget de Thiès pièce, les Thiès yokk dans mairie bi ba demain, la mairie il une subvention de 200 millions pour le mouvement navétane c'est ça mon rêve balaa ngeen des femmes on met 500 millions pour pour les femmes C'est ça notre rêve c'est possible mais mais ça suppose que ngeen ñëw jàppale mairie bi mais bis bu parce que dans daan moom seen mairie bi day xeex rek ngeen on sera encore là.

sommes en train de nous battre di xeex pour ay partenariat pour la voirie urbaine du nekk qui est équipé waat en capacité maintenant a agir dans la leen donc UCG fait un excellent travail mais dinañu renforcer renforcé maintenant, comme disent les Wolof ndar moom montré une sotti ndànk ndànk il jàppale appelé vision de nga Il ci Thiès yéene bi Il am ci Thiès taxawaay

tout le travail. J'étais accompagné de Mohamed Diazou, partenariat et coopération. Rencontre avec Ami toute la rencontre qui équipement technique rek la nan lañ mën a def ba am ay tasseuse nan lañ mën def ba caisse am ay véhicule de vidange nan lañ lañ mën à def ba caisse am ay véhicule de citerne nan lañ mën def ba caisse am ay nacelle ay véhicule de nacelle nan lañ def ay am camion nan lañ lañ mën a def kees itam ay ay ay 200 yoo xam mën nañ dem sur le terrain à tout moment mais nan lañ mën a def ba ay feux tricolores ci yenn rond-point yi nga xamante ni yenn heures yi dafay am embouteillage oto yi dafay bëri nan lañ koy am kon loolu ñu ngi ci liggéey te yamuñu ci rek ci partenariat stratégie de mobilisation de ressources bi ñu bëgg ñun dem nañ def des recherches liggéey ak ay entreprises.